yoonu mucc gi yàlla tëral saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu juróom fukkeelu njàngale mi yeesu feeñu na ay taalibeem nanu bamtu nettali yi weesu benn ndax ndekkiteel yeesu am na solo waaw ndaxte dëggal na ne yéesu mooy doomu yàlla mbind mi nee na doomu yàlla la ndaxte ndekkiteem nekk na firnde ju ràññeeku ne moom la ñaar naka la yàlla wone seytaane dooleem dekkil na yéesu ñett ndax seytaane daan na yàlla bi ñu daajee yéesu ci bant déedéet ndaxte deewu yeesu bokkoon na ci li yàlla tëraloon seytaane yàq na kolore diggante yàlla ak adama ci toolu àjjana seytaane bëggul nit fas kolore ak yàlla te bëggul it nit am cofeel ci yàlla yéesu dee na ngir sunuy bàkkaar ngir fasaat kolore sunu diggante ak yàlla te jubale na yàlla ñeent ndax sët bi yàlla digee def na lépp li yàlla wax ne dina ko def. waaw mbind mu sell mi nee na ci luk saar ñaar fukk ak ñeent aaya ñeent fukk ñeent ba aaya juróom fukk benn noonu mu ne leen bi ma nekkee ak yéen waxoon naa leen baat yi li ñu bind lépp ci samay mbir ci yoonu Musa ak ci téere yonent yi ak ci saboor dafa war a am noonu moo ubbi seen xel ngir ñu xam li mbind mi di wax mu ne leen faw almasi bi sonn mu dee te dekki ca ñetteelu fan bi ni ñu ko binde te it ñuy yëgle xeet yépp ci turam dale ko ci Yerusalem ne war nañoo tub seeni bakaar yàlla bal leen yéenay samay seede te man dinaa leen yónnee li sama baay dige yéen nag toog leen ci dëkk bi ba ñu sol leen doole ji jóge ci kaw gannaaw loolu yeesu yóbbu leen ca wetu betani foofa mu yëkkati ay loxoom barkeel leen bi mu leen dee barkeel mu tàggoo ak ñoom yàlla yéege ko asamaan bu leen fàtte ràññee melokaani yàlla yi ci nettali bi yeesu feeñu na ay taalibeem nettali mu ngi aju ci ni yeesu feeñoo ay taalibeem gannaaw bi mu dekkee gannaaw bi yeesu feeñoo maryaama magdala feeñu na itam ñaari taalibeem ñaari taalibe yooyu ñu ngi doon dem dëkku emawus emawus sorewul woon yerusalem ñuy dox tey waxtaan ci mbir mi xew yeesu dab leen ànd ak ñoom ñu gis ko waaye seen bët muuru ba mënuñu koo xàmmee yeesu laaj leen ci lan la ñuy waxtaan ñu tontu ne ñu ngi waxtaan ci mbir mi yéesum yeesum nasaret ñu ne ko yéesu ab yonent bu mag la woon waaye sëriñ su mag si atte nañu ko teg ko dee ba daaj ko ci bant ñu wax ko ne yaakaaram nañu ne yéesu dina musal israel ci nguuru waa Rom yi ñu wax ko ne néewu yéesu nekkatul ci bàmmeel bi bés boobu la woon ñetteelu fan wa gannaaw bi ñu daajee yeesu ci bant ñu wax ko ne loolu jaaxal na leen noonu yeesu na leen yéen daal yéen a ñàkk xel te seen xol yéex a gëm li yonent yi yégle woon xanaa du almasi bi dafa waroon a daj boobu coono te dugg ci ndamam noonu mu firil leen li mbind mu sel mi wax ci mbiram dala ci musa ba ci yeneen yonent yépp yeesu leeralal leen ne almasi bi waroon na am metit te dee ngir musal bàkkaarkat yi bi ñuy jëm ci emawus ñu téye yeesu ngir mu fanaan ak ñoom noonu mu ànd ak ñoom bi ñuy reer yéesu jël mburu mi sant yàlla damu mburu mi jox leen ko ca saasa seeni bët ubbiku ñu xàmme yeesu te saa soosa la leen yeesu réer ñu waaru ci li yeesu nekkoon di wax ak ñoom ñu jóg dellu yerusalem ci saasi ñu fekk taalibe ya dajaloo cab néeg bu ñu tëj buntu ya taalibe ya dañu ragaloon ndax sëriñ yawut ya ñaari taalibeya ya naka la leen yeesu feeñoo ak ni mu leen firilee mbind mu sell mi ñu ne ñu ngi ko xàmmee bi mu demee mburu mi bi ñuy waxtaan jékki-jékki yeesu feeñu leen ne leen na jàmm wàcc ci yéen taalibe yi tiit ndaxte foogoon nañu ne ab njuuma la waaye yeesu ne leen xool leen samay loxo ak samay tànk man mii la laal leen ma te xam njuuma amul yaram wala ay yax ni ngeen gisee ma am ko mu won leen fi ñu ko daajoon ay pont noonu mu laaj lu mu lekk ñu jox ko jën wu ñu lakk mu daal di lekk ganaaw loolu mu wax leen lépp li yonent yàlla Musaa ak yonent yàlla Daawuda ak yeneen yonent yàlla bind ci moom yéesu loolu lépp doon na dëgg mu ne leen faw almasi bi sonn mu dee te dekk ci ñetteelu fan ba ni ñu ko bindee te it ñu yëgle xeet yépp ci turam dale ko ci Yerusalem ne war nañoo tuub seeni bakaar yàlla baal leen yéenay samay seede te man dinaa leen yónnee li sama baay dige yéen nag toog leen ci dëkk bi bañu ñu sol leen doole ji jóge ci kaw noonu yeesu ne mes ci seeni bët toma kenn ci fukki ndaw yi ak ñaar nekk fa woon taalibe yi wax toma gis nañu borom bi waaye toma ne su ma gisul ñu daajoon pont ya ci ay loxoom te defuma ca sama baaraam su ma tegal ut sama loxo ci wetam duma ko gëm mukk ñu teg ci ayubas yeesu feeñ waat taalibe ya toomaa nga fa woon néeg boobu ñu nekkoon dafa tëje woon waaye jékki-jékki yeesu feeñ ci seen kanam yeesu ne leen na jàmm wàcc ci yéen noonu mu ne toma indil sa baaraam fii te seet sama loxo indil sa loxo teg ko ci sama wet bayil di weddi te nga gëm toomaa tontu ko ne sama boroom sama yàlla yéesu ne ko li nga ma gis a tax nga gëm ki mooy ki gëm te gisuma am na beneen yoon bu yeesu feeñu lu ëpp juróomi téeméeri taalibe ñeent fukki fan yi tegu ci ndekkiteem yeesu feeñu na yoon yu bare ay taalibeem jàngal leen bala muy de yéesu digoon na taalibeem yi ne dina yónni xel mu sel mi mu ne leen li gën ci yéen mooy ma dem ndaxte su dul loolu dimbalekat bi du ñëw ci yéen waaye su ma demee dinaa leen ko yónnee te bu dikkee dina yey nit àddina ci lu jëm ci seen bàkkaar ci lu jëm ci sama njubte ak ci lu jëm ci atta ba yéesu wax taalibeem yi ne xel mu sell mi dina wàcc ci ñoom ci ab bu néew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 yéegi ko asamaan dina dellu ci ni ngeen ko gisee muy dem asamaan taalibe yi dellu yerusalem ak mbégte gu rëy fii la nettali bi yem am na ay laaj benn lan la yeesu wax ñaari taalibe yamu daboon ci yoonu emawus firil na leen li yonent yi waxoon ci mbirum musalkat bi war a ñëw firil na leen itam naka la war a deewee ngir fay mugalu bàkkaar nit ñi ñaar kañ la ñaari taalibe ya xam ne yeesu mooy wax ak ñoom yeesu jël na mburu mi sant yàlla damu mburu mi jox leen ko ci saasa la seeni bët ubbiku ñu xàmmee yeesu ñett naka la taalibe yi xàmmee yeesu leen feeñoo ci néeg ba ñu tëjoon buntu ya gis fi ñu daajoon ay pont ci ay loxoom ak ci ay tànkam. ñeent lu tax Tooma amoon xel ñaar ci ndekkiteel Yeesu. ndaxte gisul woon yéesu moom ci boppam. juróom ndax Tooma gëm bi mu gisee yéesu waaw juróom benn lan la yeesu sant ay taalibeem ñu def ko waroon nañu xaar ci yerusalem xel mu sell mi gannaaw gi war nañu doon ay seedeem war nañu wa àddina ngir yégle xabaar bu baax bi aju ci ay mbiram juróom ñaar lan la leen yeesu dig wax na leen ne dimbalikat bi maanaam xel mu sell mi dina wàcc ci ñoom ngir jox leen doole bu ñu doonee ay seedeem juróom-ñett ndax nit ñu bare gis nañu yéesu ci ñeent fukki fan yu topp ci ndekkiteem waaw lu ëpp juróomi téeméeri nit gis nañu ko. juróom-ñeent bi mu dekkee ba mu am ñeent fukki fan yeesu yéeg na kaw asamaan lan la malaaka yi wax taalibe yi bi yeesu yéegee kaw asamaan. wax nañu leen ne yeesu dina dellu ni ñu ko gisee muy dem asaman fukk ndax gëm ngeen ne yéesu dina dellusi ci àddina ni ko malaaka yi yëgle waaw ndaxte yàlla lépp lu mu digee dina ko def yan melokaan yàlla lañu gis ci nettali bi ak naka lañu ci feeñe yàlla mooy borom doole seytaane amul woon doole rey yéesu yeesu moo joxe bakkanam ci coobareem ngir musal bakkarkat yi yéesu daan na seytaane bi mu dekkee gépp mbaax mu ngi jóge ci yàlla yàlla am na cofeel ci nit ñi moo tax mu joxe sarax bi amul sikk ngir sunuy bàkkaar yeesu yëg na asamaan waaye digg na ne xel mu sell mi dina ñëw ngir dimbali nit ñi ko gëm yàlla lu mu digge def ko yàlla digge na ab musalkat buy ñëw te musalkat boobu ñëw na yàlla joxe na sarax si amul sikk muy yéesu mi dee ngir jot bàkkaari nit ñi yéesu wax na ne dina dekki ci ñetteelu fan wi te def na ko malaaka wax nañu taalibe ya ne yeesu dina dellusi te dina ko def beneen yoon dinañ waxtaan ci mbirum bésu àtte bi